jaale ñi nga xam ne dañ si ñàkk seen bakkan mhm. donc mu doon loo xam ne kenn du ko rafetlu munoon na ñàkk munoon na ñàkk dans la mesure où l'arrêté de la discorde comme je l'appelle nit ñi àtt woon nañ bokk na si ñu si àtt woon euh, Birahim Seck Forum Civil mhm. depuis le trois août mu ne monsieur le préfet sa arrêté bii nii dina jur coow xoolaat leen ko ndaxte lan moo amoon dafa am lu ñu tuddee emploi non qualifié te loolu depuis la loi sur le contenu local bi nga xam ne état du Sénégal jël na ko sur ce qui est industrie extractive <coughs> que ce soit minière gazière ou pétrolière loi bi dafay jox obligation à ce que yi emploi yi njëkk kaa jël au niveau local boo ko amul nga soog kaa jéggaane mm-hmm. donc de ce point de vue ici on parle de l'emploi d'emploi non qualifié léegi nag mu amoon ay commission commission yi ñoo doon tànn ñan ñoo war a dem liggéey ci exploitation minière bi commission yooyu noonu chef de village yi ñoo ko daan jiite. Mhm. sous préfet yi ak préfet yi ils étaient jusque membre coordonnateur ou superviseur, superviseur du du truc maintenant dafa am arrêté bu bees bu ñu jël pour ne maintenant préfet yi ñooy jiite commission yi. Mhm. problème bi nag mooy lu may wax toujours rek tous ce qui se fait pour moi et sans moi et forcément contre moi mooy maanaam décision boo mënti bëgg jël. même donte le njëriñu askan wi la. Mhm. boo ko waxtaanewul ak askan wi rek lii la la mën a jural. la question mooy est-ce que balaa arrêté bi ñu ko doon jël am na waxtaan bu waroon entre préfet bi. ak les chefs de ak ak yi pour ñu xam mhm. lu tax ñu changer. mbir mi mbir mi. Mhm. c'est une question que je me pose donc maintenant mais c'est parce que tey jii nii arrêté décret loi secteur bu mu concerne ñoo ko war a jël. waaw. tey boo doon jël. décret mais lu pourquoi lan moo tax préfet di jël arrêté bi. non lan moo xam nga lan moo tax xaw ma ko. Mhm. je pose cette question moi en me demandant. mais mais normalement si sa si sa sa information fu mu yem war nga mën a xam mën nañ war na ma am piste de réflexion lan moom moo tax. si bien sûr oui oui oui je veux dire. est ce que parce que parce si ex nihilo xamuñu lan moo tax loolu c' impossible. non non non xam nga moo tax je suis pas au niveau d' information qui me permet de savoir lan moo xam ne. on part d'hypothèse première hypothèse est-ce que fonctionnement commission yi mu ngi doon dox comme nu mu waree xamuñu. waaw est-ce que recrutement yi donte le chef de village yi ñoo ko yoroon mu ngi doon jaar yoon nu mu waree xamuñu donc loolu moo tax may la comme xaw ma je pose des question Ah, mhm. maintenant est-ce que y avait des correctifs à apporter moo waraloon lii wala leneen la on ne sait pas mais dans tous les cas li may wax rek moo di nii une décision bu mel nii boo ko naree jël da ngay waxtaan ak nit ñi.